aousubillah min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim allahuma salli ala seydina muhammadin ilfaatihi lima uxliqa walxaatihi lima sabaca naasir ilxaq bilxaq walhaadihi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa xadrihi wa mixdaari azim mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéene safoo chaîne bii di alxaybu tv ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu xaq te di leen baal te di sàkku bu baax buur bi nongul ñu di rafetlu bu baax topp gi nga xam ne yéen ñi koy topp ci seen bile ak bépp commentaire bi ciy jaar bu nekk ñu koy gis waaye lépp yiw bi nga xam ne amee nañ ko yàlla nañ ko bokk ñu ñëpp di ñaan yàlla koor gi yàlla bu nekk suñu mujjanteelu koor su ko defee tey dañuy ñëw ci li nga xam moo di naafile 10 jours di quinzième nuit incha allah tey naafile bi juróom benn ràkk la ñetti sëlmal ginnaaw fatiha yaa ngi jàng benn iza jaa nasrullahi wal fanweer ak juróom ixlaas muy xul huwa allahu ahad su ko defee ñu baamuwaat ko tey naafile bi di quinzième nuit juróom benn ràkka la ñetti sëlmal ginnaaw fatiha yan yéen a ngi ci teg benn isa jaa nasrullahi ak fanweer ak juróom xul huwa allahu ahad yàlla nañu yàlla sutura te yàlla nanguñu suñu jaamu yàlla te nanguñu suñu koor asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa